moom ma laloon der ba ndox ma diru koor def jàkka maa yomba tubaab ya seere ko moom ma der ba ca ndox ma diru koor def jàkka maa yomba tubaab ya seere ko moom ma laloon der ca ndox ma diru ko def jàkka maa ba tubaab ya seere ko moo wuti woon bantam ya joor ca gaar defar ca jàkka ngir bégal njool màkk moo wuti woon bantam ya joor ca gaar ba defar ca jàkka ngir bégal njool màkka bam sëlmalee ba dellu noon ya dox gannaaw tasaare loola seen jëfin yaa gën a ñaaw bam sëlmalee ba dellu noon ba dox gannaaw tasaare loola seen jëfin yaa gën a ñaaw keroog la taalif xasidaak radiitu gaaral ko buur yàlla mu koy tontu wajhal bi masjid yaa muqiitu moom la waxoon ca xasidaak radiitu buur yàlla naa ko des na yokku say jumaa fa Jurbel ak Tuuba ila rabbi sama bur yàlla ko des na yokku say juma fa Jurbel ak Tuuba ila rabbi sama saaxali xayri laawu fi ma yoon ba masa xalbiya wa ahlal janba li baatinu jumaay Sëriñ Tuuba yi ku mel ni moom defu ko raas ci gaayi sooroor ya siggi nañu xutbaam ya tiim ko ku jaar ca réew ma foofa xoolit seen ko addi sëñ Tuubaa